aoudubillahi min asheytaan irajim bisimillahi rahmaanirahim mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen baalu àq bu baax a baax di leen ndokkeel di rafetlu ànd bi ngeen ànd ak seen bi di alquran karim zik wa shifa ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné partagé ku am laaj mën nga jaar ci yoon yi xam ne moom la ñuy wax toujours di wax ne am na ay changement yu ci am yu bëree bari daan nañ def ku am laaj ñi envoyé ko message vocal toujours li ma wax ñu bañ di wootee bañ a bind mënuma wuyu téléphone yëpp mënuma bindante ak ñëpp ku am laaj defal message vocal whatsapp ci foofu liñ ci leeral wax ne bu njëkk daan nañ ko def da nga jot sa tontu gratuitement mais vraiment euh, yëf yi dafa débordé ba àgg foo xam ne man wi euh, tontu laaj yi xam naa li ma ci jànkonteel daal foofu ñu changé ak organiser ko. moo tax léegi dañu def ku am laaj da ngay envoyé 500 yëpp nga koy def wala orange mu ne ci même numéro boo paree nga def capture ci message bi nga defee transfert bi envoyé audio gént bi incha allah ak trans message transfert bi boo ko defee da nga jot sa tontu incha allahu tabaraka wa taala balaa ngay fay mën nga njëkkee lenn daanaka dem nañ ci 200 vidéo lu ko jege mën nga dem ci page bi nga seet li nga gént mën na am da nga ko fa gis boo ko gisul nga doog ci laaj yi dana gën a woyofal liggéey bi te dana gën a sakkanal poos yi tamit dana ci baax incha allah maanaam liggéey bi dana woyof ci ñun te dana sa kanal seen poos incha allah euh, ñi ñëw ci tey bunt bu am solo mu dellu ci gént gis ginaar ginaar bari na ay laaj li may wax toujours nit ñi moom lu nekk lañuy ñuy gént waaye gént du xel moo koy firi euh, wax naa ko waxati ko gént yi nit ñiy firi li ci ëpp mu ngi ci téere yi bu sa njàng arab àggee ci ent fenn fii nga mën a liir boo demee léegi jënd téere yi mën nga ko liiral sa bopp borom xam-xam yi bind nañ li ci ëpp daanaka Euh, li ci des complémentarité lay doon rek complement rek lay doon laa bëgg a wax sax ci yeneen jàng waaye li ëpp bind nañ ko pare maanaam gént kon xel du ko firi ginaar boo waxee dañ naan nee nañ ma ginaar jafe-jafe la ak ginaar nangam du noonu gént du noonu li nga jàpp kon teelul nga jàpp nii ñu koy firee jàpp nañ ne firi bu baax la ndax gëstu yi ci daje moo tax li nga jàpp mooy ginaar goo xam ne bu ñu togg la mis yi ko xam naa loolu ndaw ku ndaay ak euh, soow soow yi dana baax ci ñoom ginaar gu ñu saaf nii defar ko dafa am firi kooku ñëpp ñoo ko bokk képp koo xam ne gént nga ginaar gu ñu mooy ginaar gu ñu njooñ laa bëgg a wax képp ko gént di ko lekk lan lay firi li muy firi bu dee commerçant la day firi bénéfice arbaax maanaam bénéfice bu am solo donc am ci sa commerce bu dee keneen koo xam ne du commerce bi liggéey boo mën a def yàlla dina la ci may xaalis ma muy firi xaalis lay firi tout court ci gàttal ginaar gu ñu njoñ di ko lekk wala nga gis ko jigéen génn dafay firi xaalis bu bari incha allah waaye ci ginnaaw ay effort yu bari xam da nga def coono nag pour jot ko loolu lay firi amul beneen firi li bon ci lekk ginaar mooy nga gën ci lekk bopp ginaar kese bopp ginaar kese bu ñor ak bu ñorul baaxul kii firi gëtu gént yu mag yëpp moo xam ibnu sirin la moo xam ibnu shahin la moo xam annablusi boroom xam-xam yu ngand yooyu yëpp d'accord nañ ci ne gént di lekk bopp ginaar baaxul lan lay firi benn ñàkk ku la jege maanaam sa soxna dana faatu wala sa boroom kër faatu wala ku la ku cher ci yow da ko ñàkk baaxul ci gént yàlla ko yàlla xaj yi wala ayaazu billah kon nga jàpp ñaari ngoog da nga gént gis ginaar ak ay doomam laaj jaar na fi euh, Euh, ginaar ak ay doomam nga gént gis leen nii lan lay firi xusaaratul amwaal maanaam ñàkk ñàkk dara ci sa alal sa alal dina réer wala dina ko sàcc wala wala wala daal da ñàkk sa xaalis mooy ginaar nga gis mu ànd ak ay doomam ginaar guy dund toujours moo gën ginaar gu dee dana ñëw ci ginaar bu dee lan lay firi ginaar goo xam ne dafa taxaw nii rek nga gént gis ko muy dund waxuma bu ma waxee ginaar gu dee bu buñ togg buñ togg moom wax naa koo ba pare ginaar goo xam ne dee na nii nga gént gis ko danaa ci ñëw waaye ginaar gii danga ka gis mu nekk ginaar buy dund lan lay firi dafay fiir alal ju lew maanaam xaalis bu lew boo xam ne danga ko am te ci yoon bu jaar yoon incha allah te danga ko dugal fu jaar yoon laa bëgg wax Dieng. ko doon laaj yegsi na Baye Sidi dellu si na da nga am soxla ci ubbeeku liggéey bayre ak régler ay këyit booba léegi mu tëla ticc indil na la secret bu doy waar tuddee ko Taysiir jaare ko ci bismillahi rahmaani rahim ci kàttanu yàlla bu la ko defalee lépp lu la jafe woon dina la yomb waaye fàttewul yéen yi nga xam ne dangeen soxla kaaraange maanaam rab liggéey. ak làmmiñ mu jël ayatul kursi boole ko naa si njàmbaas ci xaatimu suleymaan defal la ko ci secret bu doy waa tuddee ko mucc waaw mucc kay boo ko takkee rek yàlla dina la defal kaaraange ba lépp lu jub si nga mën cee mucc yéen di nga xam ne da ngeen a am soxlay borom kër booba léegi mu leen mun na leen dégg alxayri bàyyi sii di fàttewu leen dafa jël téere boo xam ni mu ngi tudd du tilim bind ko du tilim mu ànd ko xaatim boo xam ni boo ko sangoo takk téere bi balaa muy tilim dinañu fëgg sa kër ne la alxayri fàttewul yéen itam ñi nga xam ne da ngeen am jafe-jafe am doom boobu ba léegi ci seen néegu sëy pour nga jot ko yomb na wooteel ci 77 959 08 97 ah mais nag bu dee urgence la demal ci numéro bii 77 583 86 53 ak sii Sidi ci kàttanu yàlla sa aajo faju gént jiital ay ginaar nga topp ci ginaar muy dox ànd ak ay cuujam wala ay ginaar yu bëri wër la nii ngay dàq jaar si jàpp benn comme di nga miinee dàq ginaar jàpp loolu nga gént gis ko lan day firi moom it dafay firi ah alal maanaam xaalis day firi waaye ci ginnaaw coono moom it maanaam boo sonnee defee effort danga am ci kàttanu yàlla incha allah baax na lool lool ndax ñëppay wut waaye nekkul ne waaye fu ñu la wonee ci gént ngay jiital ay ginaar yu bari jàpp si benn danay fiir ne boo defee effort da nga am teraanga incha allah gént jënd ginaar mais ginaar gi nga jënd da gis bu nekk ginaar gu rëy nga gént jënd ko ci góor lan lay firi maanaam ginaar gu xam ne ëpp na ni nga miinee ni nga miinee ginaar mu yem maanaam ginaar gu ngande daal nga gént jënd ko ci góor dafay firi yàlla dana la may soxna soo xam ne dana nekk nit ku am xaalis danga ko am bu dee jigéen la alax tamaama même moom it loolu lay firi bu dee jigéen moo gént jënd ginaar ko mu dafay firi jëkkër yoo xam ne dana am xaalis lool incha allah kon baax na waaw kay euh, gént di rend ginaar laaj bi jaaroon na fi góor gu gént di rend ginaar baaxul ci góor baaxul lan lay firi talaak divorce lay firi ci sa sëy maanaam yaag sa soxna da ngeen tàqalu ko wala iyaazu billah yal na ko yàlla xajji gént nag buñ la waxee baaxul sàkkal sarax sarax moom naan la lii la ak lii lii lii sarax ñaari seetal lu nit soxla nga xam ne nit bu xëyee dana soxla lu mu lekk wala dana soxla xaalis wala dana soxla dara nga jël ci sa alal wax ma nga jël lu bon nga jël loo xam ne yow soxla nga ko nit soxla na ko nga saraxe ko sarax dana fàq lépp ci kàttan yàlla incha allah buñ la waxee baaxul lekk sàkkal sarax même xattaa buñ la waxee baax na sàkkal sarax yàlla mën na ko indi incha nga génte gis ginaar dugg ci sa kër wala ci sa néeg wala fi nga tëdd shifa lil marid da nga wér ci feebar boobu incha allah baax na kon ñi lay wax ginaar demeewul noonu lii ma la wax nii jàpp na ne mooy firi bi gën a jaar yoon ginaar goo xam ne yaa ko moom nga gént di ko jaay lan lay firi kooku sa personnalité la mooy yow da ngay am alal mais da nga ko yàq maanaam da nga am xaalis waaye doo ko dépassé fi doo ko def fi nga ko war def dépense daal dugg fi maanaam da nga yàq rek waaw gént di jaay ginaar loolu lay firi gént ginaar di ko togg danga nga gént di togg ginaar ceeb la wala lu mu mën a doon bu la fekkee ci boor xamal la yàlla dina dimbale sa bor yi danga ko am loo ko fay te da nga ko fay bu la fekkee ci aajo bu boo soxla woon di ko lijjanti loola duna sotti incha allah baax na lool lool gént di suqi ginaar ginaar nga gént di ko suqi foofu moom baaxul waxuma la ren di suqi nga gént defar ni ngay defee ginaar génnee yépp pour préparer pour togg lan lay firi bu dee góor dafay firi feebar ci soxnaam bu dee jigéen day firi feebar ci jëkkëram baaxul bu dee koo xam ne amul soxna wala amul borom kër dafay firi feebar ci yow wala ko la jege baaxul waa kay ginaar gu gu gu dee waxoon naa leen baaxul ginaar boo xam ne dafa médd dafa dee nii comme ginaar bu dee te togguñ ko deful dara waxoon naa leen baaxul bu fekkee ci célibataire xale bu jigéen la wala xale bu góor nga gént ko lan lay firi maanaam xutuba boo xam ne maanaam dafa am bu la fekkoon ku la doon labat wala ku lay bëgg ba nga nekk ci projet mariage xamal ne dana yàqu ci ñaar ñi ku mën a doon bu dee ñi nga xam dañoo nekk ci néegu sëy ay jafe-jafe ki xat-xat ci seen néegu sëy la moom kon baaxul waxoon naa la ginaar guy dund moo gën ginaar gu dee waxuma ginaar gu dee gu ñor gu ñorul laa wax gént di lekk ginaar waxoon naa ni danga ginaar boo xam ne mosu nañ ko nga géntee ko lekk wax naa ko waaye fekkee da nga ginaar kese kese kese nga yor dënn bi kese di ko lekk lan lay firi tadulu ala safar ñaari maanaam benn tukki lay firi wa illa wazifa maanaam liggéey place liggéeyukaay bu baax a baax incha allah baax na mooy gént di lekk di lekk dënn bi waxoon naa la gént di rendi ginaar jàpp delluwaatal ca kaw gént di di rendi ginaar waxoon naa ci góor divorce lay firi góor gu am soxna waxoon naa ko waaye fii ci célibataire la moo tax toujours li ma leen di faral di wax ne gént dana firi ki ci kii lii firi ci li kii ñoom ñaar même gént gi te firi yi doon benn xoolal bu ko célibataire géntee lan lay firi jëkkër lay firi wala soxna te bu dee góor gu am soxna mu firi divorce ci biir sëyam kon nga jàpp loolu gént di lekk laaf xam naa li may wax euh, ndaw ko ndaay kontaan na lool lekkoo bopp bi bopp bi wax naa ko dënd bi wax naa ko waaye danga gént pooj yi wala benn ci ñaari laaf yi nga gént moom kese di ko lekk lan lay firi dafay firi yàlla mën na laa may soxna soo xam ne dana nekk nit ku baax a baax a baax soxna su baax soxna su yiw nekk ci saalixaat yi bu fekkee góor jigéen moo ko gént nay firi yàlla mën na laa may boroom kër boo xam dina am sifaat yoo xam ne maanaam jikko ak ay melokaan yoo xam ne melokaan melokaanu sang la kooku ngeen dugg baax a baax la euh, riisu dajaaja maanaam donk ginaar benn wala ay donk ginaar kese nga gis baax na lool maalun xalaal kooku alal lay firi gént dugg baax a baax la ginaar gu xonq dafa am différence ak yeneen ginaar yi lan ngay jàpp ci ginaar bu xonq bu dee célibataire boo ko gént jëkkër lay firi wala soxna incha allah ginaar gu xonq ci jigéen bu nekk ci néegu sëy danay firi ëmb danay firi stabilité maanaam jàmm ak dal ci sa néegu sëy ala kulli xaal lii mooy bunt bi leen indiloon tey ci ginaar ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné partagé wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu